برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نينان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسول الله sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi del siaat ci eh, suñu émission bi nga xam ne eh, yàlla moo ñu tàggatal boppam tàggatal ñu suñuy roox tàggatal ñeneen boppam tàggatal leen seeni roox ñu jublu ci yàlla di fuuglu émission yi mel nii nga xam ne ci yàlla rek laay wax ci turam yu rafet yi ma ne faatiha bi ñu doon waxtaanee suñu émission bi passé ñu ngi del siaat tey di ci indi tey lu gàtt mooy yonent bi sallallahu alayhi wa moo solo ne fukk ni ngi nii yoo xam ne dafay nekk euh, daf lay garante ci fukk fukk yi lay garante ci fukk ñu ne ko loolu yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne faatiha day tax yàlla du la mere képp kuy jàng faati yàlla du la mere kooku boo tegoon kaamel ñu waat ko ndax yonent yàlla moom sallallahu alayhi wa sallam rawatina nga yore jikkooy faatiha nag muy benn kuy jàng faatiha yàlla du la mere kuy jàng sóoratu yaasin doo mar yoomal qiyaama kuy jàng sóoratu duxaan bésu ba nit ñeey tiit bés boobu yow yàlla dana la garanti doo tiit kuy jàng sóoratu waaqiya doo ñàkk yàlla dana la fegal ñàkk annool fa faqr wal faq koy jàng suratul mulk yàlla gaaranta na la musal la ci mbugalum bàmmeel moo tax sax boo demee yonent ni mu ko waxee ci beneen hadis daf ne saara ngi nii boo xam ne fanweeri aaya la yoo xam ne ci bàmmeel mooy nekk avocat bu borom ñu ne ko lan la yow Muhammad salaam mu ne suratul mulk képp ko jàng fanweeri aaya yooyu ñëppay sol robb bu fekkee na nga daan jàng suratul mulki dañ la solal robb buñ ñëwee attaqué la kenn ko jóg buñ ko région keneen jóg ba ba ñu àgg bala ñu àgg ba dañ la baal moo tax mu ne sóoratu mulk képp koy jàng yàlla moo la garantal ne yow doo bàmmeel sóoratu kawsar képp koy jàng yàlla dana la musal ci ayu xuloo nit ñi dañ ko di xeet nag mais bëri na kuñ déggaraate ci xuloo lañ la déggaraate waaw demal ci ay say kilifa rek ñu lay liggéeyloo nga bari loy xulo ci entreprise bi yow mom da ngay toore gis ñu ñu wañi la kon sorotu kaw sar day tax musal nit ci xuloo surtout xulo yi dégraté nit kafiro kafirona day dox digënté nit ki ay yifër képp koy jàng yalla dana musal ci yalla euh ba surtout buy dé li gëna bon nak moy gëm yalla bay dé rek dañuy weddi yalla te képp jàng ina qul ya ayyul kafirun laa abudu ma taabudun booy dee da nga saxal ne laa ilaha illallah muhammad rasulullah salaam añ sóoratu ixlaas képp koy jàng yàlla doona dox sa diggante ak diggante naafiq doo nekk mukk naafiq xuloo laa waat ko jàng nekk naafiq sóoratul falax képp koy jàng yàlla doona dox sa diggante aji xañaan bu fekkee dafa xañaan sóoratu naas képp koy jàng yàlla doona dox sa digganteeg waswasa moo jax-jaale xol kenn ku ne nga ñaaw njort ci moom ne diw daf ma bañ diw nii diw naa yooyu da ci ciy dolli mucc bu defee loolu lañ doon maye tey muy fukki saar yoo xam ne wax nañ leen eh, benn bu ne lu muy def ba ca njëkk mooy Faatiha ba ca topp mooy Yaasin ba ca topp mooy sorotu Duxaan ba ca topp mooy sorotu Waaqia ba ca topp mooy sorotu Mulki ba ca topp mooy innaa a'taynaakal Kawsar ba topp mooy xul yaayul kaafiroon ba topp mooy xul wala waab topp mooy fallaxi ba topp mooy naasi nga dal di nekk ku sa wécc di nekk nitu aljana buy dox ci kaw suuf fukk yooyu génnee ko di ko jàng nga seet te nag ñi leen ay mayaat ñeent fukk bi ñu leen waxoon ca émission bi passé xam nga ñeent fukk ak benn moom xam nga lan la ci yonent bi wax ci sallallahu alayhi wa sallam te mag ñi ne nañ nattu nañ ko mu jarabaat la fi fataayu suufiya mu ne man daawa ma képp ko taxoo xaalaa qiraatil fatiha maal basmala bayna sunnati subhi wa fardihi bi noddee noddu fajar bala ñuy julli nga def ko ñeent fukk ak benn lii la waxoon naa ko ci émission bi passé waaye dafa am solo moo tax may ko baamuwaat ñu ne in kaana faqiran bu nekkoon ko ñàkk awnaahu laahu yàlla dana ko jox xaalis ween kaana madiyoonan bu yore woon bot yow mu yore bot fu ñu noddetee fajar rek jàngal ngeen fukki faate ak benn yàlla dana ko fayal ween kaana maridan bu fekkee dafa feebar boo jàng faate ñeen fukki faate ak benn diggante eh, ñaar rakkay sunna ñaar rakkay fajar shafaahu llahu sarian yàlla na ko saafara jàngoroom li ween kaana daayifan yow mi ne sa kër te amuloo kattan ci yi ngi soxla kattan del jàng ñeen fukki faate boo jullee fajar euh, fajar bala ñuy julli suba bu fekkee dangay dem ci dëkk tumuranke del jàng bu ñu noddee fajar rek euh, jàngal faatiha bala ñu noddu euh, bala ngay julli ju suba diggante soo jàng fa ñeent fukki faatiha ak benn yàlla dana la may teraanga ci biir dëkkandoo ña nga nekkat donte danga fa tumuranke mu ne nag pour lii ñu la doon wax ترانغال لا جو خامن ترانغال نين فك فاتح اك بن ترانغال بو خامن شرف بين الناس بايش لا يقاس لا يقاس عليه وصف من العز والشرف وكان محبوبا عند العالم علي وشوفي تكوك فك بن دي فجر صلاه غير من النوم من جان نين فك فاتح اك بن يلا دا فاي ديف وي كو وي بوغلا موي واني تي كو اك وي سوبلي موي حتى ني سوبلي ني لندم ni sax dañ lay ñi baax ñi dañ lay bugg ñu bon ñi dañ lay bugg wa kaana masmool xawla te sa wax dañ koy dégg mbooloo foo jëlee kàddu la ngay wax dañ ko bàyyi xel wa mag booleel fexel loo jëfit dañ koy nangu wa mu aban inda du yi te dañ lay eh, respecté noon xam nga noon li gën a bon mu noonu la ba pare yab la waaye bu la noonoo te respecté la wa mahbuban inda ma ko bugg dañ ko gën a bugg walam yazal fi amnin min amanillah bu sécurité yàlla feek mu ngi jàng ñeen fukki fàtte ak benn dem na sax ba nga xam ne nit yàlla yi wax nañ ne képp ku la taxoo jël liggéey ci place ñu xëy rek dàq la mansabun min manasib mu ne waman osila an mansibin min manasibi dunia wa yuridu an yauda ilay فيداوم على سورة الفاتحة إحدى وأربعين مرة بين سنة الصبح وفرده illa arbaina yowman waaye danoon liggéey ñu dàq ko te léeg ñu dàq ne ci place boo xam ne fekk mu ngi dundal mbooloo moo xam ne mu ne na def fu ñu noddee fajar rek mu jàng faatee ñeent fukki yoon ak benn ci diggante farata euh, sunna sub euh, ak bi euh, na ko jàng ñeent benn ba muy ñeent fukki fan ak benn bala bala muy nekk ñeent fukki fan faatee lay jàng ñeent fukki yoon ak benn diko jang ba muy ñeen fukki fan min khayri khalalin wala nuksan te bu ci jël ben bes bala yag ci ñeen fukki fan yo nañ ko delu wat ko plasam rubbama sax ñu jox an yota afdal minu man na am sax ñu jox ko lu gën la nga xam mom la yoré won man na am ñu jox ko benen poste bo xamne mo gën bam won ñu ne lan mu ne bi barakati asrar al fatiha ci barkop secret fatiha tay ki def ñeen fukki fatiha ak ci diggante euh, ñaari raakaay sunna wala ñaari raakaay suba yi mu ne laa budd te yar suqal laa wala doon saaleel foog mu am doom ju baax ñu ne ko bu fekkee nag euh, dafa bokk ñi nga xam ne mënuñoo doom mu ne law kaana aqiman doonte dafa jënam nga xam ne mën daa am doom dina am doom képp mooy bon yow soxna si nga xam ne yaa ngi sëy te mënoo am doom diggante sunna suba ak julli suba sunna fajar ak julli suba foo ko julleetee foo te sa ñaar rakkay fajar rek toogal def ñeent fukki faate ak benn yéen ci yàlla may la doom ak ku mën a doon yow góor gi sëy mënoo am doom yow jigéen gi sëy mënoo am doom du waxe boxaama nag li moom waxe alquran la du koo xam ne daf leen naan ñëw leen ma defal leen ko déedéet def ne nga defal ko sa bopp foo jullee rek def ko ñeent fukk ak benn doo am ñeent fukki guddi mukk te soxna si jëlut boo ko defee bu ñu ne bu amee ñeent fukk jëlut na commencé at balaa maa ñeent fukk foo mu jël ñeent fukki faati ak benn daan eh, dafa yaatule dafa yaatu barke mu ne hada tartib nag mu ne bu fekkee ñeent fukk ak faati ak benn nga eh, yooyu mu wax la gëm nga ko di ko takkoo feebar bu nekk ci yow xusuusan ala waje ay sa bët di métti wala sa bët lëndëm nga takkoo ñeent fukki faati ak benn ci li ci jëfe daal mooy diggante ñaar nodd nodd fa salaatu xayru mina naw bi ak julli farata ki ngay koy def ñeent fuk ak ben ne bon yi li ci mon da na dañ bu ci doon febar yalla nako safaram saafara mu ne waxaayaa nag mu ne loolu mu wax la nak sirrun min asraarin secret la ci secret min al asrar li fa la man ja la yaarifoo kenn xamu illa man wafaqoo allahu taala ndara ki nga xamne yalla deppale nako man ci ñeent fuk fàtte ak benn sa samu nëbb war na nag kan moo nëbb ko aman ah, laa yastax ko ki ko xeeyewut waaye nag danay wax toujours ne wax njëriñu alquran walla wax njëriñu tur yàlla ñaare ku ko xeeyewut doo ko jël bay koy jëfandikoo kooku imaamul hakim moo ko wax wafaqani llahu wa iyaakum ala dawaami ada tartib yal na yàlla may ma tawfiq may leen tawfiq ñu mën a taqoo lu mel nii danañ ci maye it beneen ci duratul afaax téere bu ñu wax duratul afaax xelmul wifq lay jàngale fi xelmil harf wal awqaaf mu ne man daama man daawama ala qiraati alfatiha ma al basmala xaqaba kulli salaatin maktubatin saba maratin bi hadari ayatiha fataha llahu alay abwaab alxayraat ma daama yaqrawha mu ne képp ko boo demee ci téere boobu wifq lay jàngale téeral lasra bu rëy la mu ne kuy jàng faat boo jullee farat rek bala ngay jóg boo defee baax yaatu saalihaat ba pare nga jàng faat juróom ñaari yoon yoo xam ne daa ànd bismillahi rahmaani rahim ba ci wala daaliin amin juróom ñaari yoon mu tolloog juróom ñaari aaya yi mu ne yàlla dana ko ubbil bunti xiwal yëpp bu ca seeti benn bul soxor bay ci jéem a seeti benn yàllaa wax yëpp muhammad a wax yëpp kon yëpp la wa kafaahu llahu taala ma ahamoo problème bu mu am ci min amri diini wa dunya problème am bu mu am ci mbiri diineem wala ci mbiri àdduna moom yi yàlla dana ko ko régleel ku ko jàng juróom-ñaari yoon e, fekk e, yaa ngi xëy bees dara duggagut ci sa gémmiñ nga jàng ko noonu e, même bu fekkee góom nga yore nga taflu ko ci dana xëy see daje bu wér ba mënoo ko bu fekkee ay picc la noonu la koy def moom itamit da ko jaay tafli la tafli bu am doon ndox mune bi barakatul fatiha mune wam ko yep ko takko jang li mu la wax kitab ñaar fukir, yon dem naa def naa ñaar juróom ñaar yokk naa ci tay ñaar fuk wax na ñen fuk fo la ñuy taw bu soobee yalla tepp ko takko ñaar fuk fatiha ah bis penci ci benn bis bu ne da jang ñaar fuk nim ko jangale nak la Euh, boo xëyee boo jullee suba def ñaar fukk boo jullee tisbaar def ñaar fukk boo jullee tàkkuleen def ñaar fukk boo jullee timis def ñaar fukk boo jullee geew def ñaar fukk képp ku ko def wasi àllaa risqoo sa wërsëg bu xatoon yàlla dana ko yaatal sa mbir bu lëndëmoon yàlla dana ko leeral sa mbir bu jëfoon yàlla dana ko yombal sa mbugal wala sa jafe-jafe wala sa gàllankoor bu tàttoon yàlla dana ko wuññi te képp ku koy jàngal ku ni ma ko waxee nee yàlla dana la jox lépp loo yaakaar ci teraanga ak ci wegeel ak ci kowe ak ci yëkkatiku ak ci sang te yàlla dana la wàcc ci yow barke yàlla dana la fajal xaajo waxu sa xaajo bopp waaye ku lay diis ñaan sax képp ku teg koo eh, ñaar fukki faatiya yooyu mu wax xaajo boo am yàlla noo ko faj xaajo koo ci yénaale yàlla noo ko faj danga naan àllum ixda xaaji wa xaaja man asnado du barakati fatihat kitab kooku mu naan secret bi nak mom ñu kowe mbir yi nga xam dañ leen ay kilifa diine yi mu ne ñoko ko moy bu mom ñaar fu kala bo jullee def ñaar fu waye nak bi nga xam man ci lijaasa suba da ngay def fuk da ngay bo boo fuk suba defal fukki fatiha boo jullee tisbaar defal ñaar fukki fatiha fukki fatiha juroom par juroom la nga yok bo jullee takku yalla nga def ñaar fukki fatiha bo timis nga def ñaar fukki faatiha euh, euh, ak ak juróom euh, boo jullee gee nga def fanweeri faatiha suba fukk tusubaar fukk ak juróom tàkkusaan ñaar fukk timis ñaar fukk ak juróom gee fanweer boo ko boolee muy téeméer loolu mooy ki nga xam ne day ñoddee ko héeg jëm ci kaw kiñ tooñ nag sabaan balay def daay commencé ca fanweer ci suba jëm ca fukk ca gee ñu ngi ziare pay bi di ziare xalifa bi di ziare doomi bàyyi góor yi jigéen magandoo di ziare kilifa diine yépp di ñaanal Sénégal di ñaanal sama bopp di ñaanal samay jabar di ñaanal samay doom di ñaanal ñi ma yaakaar ci yàlla di ñaanal ñu ma xaritoo ci yàlla di ñaanal ñi ma bugg ci yàlla di ñaanal ñi may déglu ci yàlla di ñaanal ñi may seetaan ci yàlla di ñaanal ñi may yónnee seen tuur ci yàlla di ñaanal ñu ma yaakaar ci yàlla ci biir ak ci biti yàlla barkeel seen lépp ci barke faatihatul kitaab surtout yoon wi ma joxe tey yoon wu ma nayangoom nag waaye nañ ko bàyyi xel suba fukk tisbaar fukk ak juróom tàkkusaan ñaar fukk timis ñaar fukk ak juróom gee fanweer wa tilka miatun kaamilatun téeméer yu matangoo yal na yàlla dimbale ñëpp di siyaare kër diine yëpp borom faate yi ñoom kër googu kër yooyu mooy kër yi nga xam ne fa la faate di jollee di ziare yaa Medina Baye imaamul akbar porte parole bi sëñ Mahi Ibrahima Niass Sani Wujud di ziare sama sëriñ sama soppe sama xarit e, Mouhamadul Amin Ibrahima Baba di ziare Baye Haadi doomu sëñ Haadi sama sëriñ sama soppe sama xarit di wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu seen xarit seen soppe al imam Mouhamad Jim Lo wa salaamualeykum